kon yaakaar ni ñom ñoy jël une euh, responsabilité pour voter pour l'intérêt de ce pays on va parler tout de suite à Madouba, Ba ginnaaw bi nga xamante ni dafa quitté APR jàkkaarloog li nga moy nouvelle responsabilité né nga c'est avec une large coalition ñu gis barki démb Aminata Touré bi nga xamante bilan comptable Macky Sall 11 ans mi loxo min ci bir mu jog di attaquer ki nga xamante moy Amadou Ba jëmele ko ci reddition des comptes néna bala mu balaa wax nouvelle responsabilité la wax ancienne responsabilité yi nga xamante ni ko nañ ko te dafa luwa moom Mimi Touré tay mën nañ japp ni ka amna rapport bi nga xamante bu UGE bu ko épinglé won ci gestion bi ji mu conseil économique social et environnemental. Wa xam nga waxi Mimi Touré wax ko sax parce que moy may ko buzz parce que man je me suis dit que dafa bëgg buzz rek ak bëgg ay nomination mom Macky Sall ba ko woné pouvoir ba parce que bu len faté ni Mimi Touré ci Abdoulaye Wade la ne nek fa directrice de campagne directrice de cabinet mais ci lolu mu juxolo Karim Wade moy waral ni bañ dàq ko fa jëlee ko fa mu dem Amérique toog fa lim naan FMI la nekk FMI defu fa dara mooy bureau yooyu nga xam ne mm-hmm. ku jóg rek doo demee ñu teg la fa parce que yow ngay surveiller loolu nañ naan FMI nañ ne di nax ni ñi naan booy xala may fayee ko FMI sax moo ëpp leen FMI ay xale yu ndaw fa fees nañ fa dell bureau yi comme neex sax nga nekk fa assistance FMI ñi lay fay ay six cent sept cent mille donc Mimi Touré amatul Macky Sall yërëm ko jëlee ko Amérique indi ko Sénégal ñëw def ko poste responsabilité bu nekk wax naa ko ko moo moo war a rendre Macky Sall delloo ko ndam mais est-ce que kut koo kut Mimi Touré moom dafa war a ne président assemblée nationale mais Macky moom mooy xool ki ko doy nga xam ni moom au moins comme Mame Diop bi nga xam ne liggéey na fi liggéey bu rafet c'est un gars sérieux kenn xamewulu ko wax kenn xamewu ko dara mu nga xam ne ñëpp équilibre lay def ñëpp ku nekk mu ne dans les débats mun a diriger assemblée nationale wala far force ko jox Mimi bi nga xam ni moo daaneel Macky Sall ba nga xam ne benn député nañ ëppalee ñooñu ñi si des opposition bi à l'époque mais Mimi Touré elle est incapable Il faut euh, euh, de la justice tëj lu fa ay nit Karim Mimi Touré nga nous envoyé spécial euh, diplomatie ben, dara doxul Aminata pour sauver le Sénégal. moo def fa diplomatie bu rafet boo xam ne àdduna bi yëpp dañuy apprécier tey diplomatie ndaw soosu sant Fall yàq na ko warta woon a sant faal hmm. beneen bi si des ñu jël Mimi Touré boobu mu ñëwaat. list liste Benno Bokk Yaakaar mi Touré gañawul dara amul lenn lu mu apporté Macky Sall Mimi Touré ñu yóbbu ko dans les élections locales mi Touré mënut a gagné Grand Yoff mais Mimi Touré lan la mës a gagné lu nekk defal nañ ko ko léegi dans ce cas Mimi boobu ne moom léegi nañ ko far far force moom dañ koy jox président assemblée nationale mais Macky choisir mais au moins da ngay am honnêteté pourtant amna na say yeneen morom yo xam ba débat bu nek lu nek defal nañ ko état bi mhm. jepp a nommé Maître El ken musuko te nommé 12 ans te taxul mu fidèle à Macky Sall parce que danee du ñepp mënuñ leena a mhm. mais ku nek xam ni Mimi Touré elle n'est pas plus compétent que Maître El mu topone ci ginaawam te pourtant musuñ ko jox même liste député yi sax dugaluñ ko ci mhm. mais Mimi Touré boobu dugal nañ ko ci mu ñew xamul ni loi bi si un député démissionne de son poste donc il va elle va démissionner de son mandat dans ce cas day perdre son mandat de député léegi bi mu fa jógee mu ne non dañ ma xeex asa kenn xeexu la loolu amendement depuis Ablaye Wad, la projet de loi boobu du un député quitte son groupe le député perd son mandat son son son son mandat de député donc dans ce cas Mimi Touré bobo mënut xajal dara wala mu toreeree dara Macky Sall mu def fukki at ak benn ci gouvernement bi eh ben, IGE inculpe euh, naka la ko dans un rapport mimitouré bobu tay moné mom bokku ci mom du ci dara motax biñuy joxé l'interdiction de sortie du territoire mané est-ce que ñëk ngeen bind suñ mam parce que mimitouré mon tamet. tamit da nga koo par rapport yoyu donc est-ce que mom Mimi mom ngeen ñëk a àtte wax par rapport judiciaire bobu mimitouré lay ñëk a wala ñenen ngeen ñëk a donc dans ce cas. il faut ñu xoolaat affaire yi sénégalais yi yeewu tuuti xam ni ñii ñi ngi waaj a daanu parce que képp ku jël Mimi Touré jiital ko mooy yow perte nga ba pare loolu signe la ci ci pertement boo xam ni signe la boo xam ne wone na ko bu wone ni ñii ànd ak Mimi Touré ci ñàkk nañ jëm comme Sonko la mu ko waxee woon ne Mimi maire yaa maam Mimi Touré moom fu mu dem rek perte moom perte perte rek lay liggéey donc tey nag peut-être bëgg na neexal ñële moo tax lu nekk mu yàq ko Macky Sall mais Macky Sall gàcce ngaalaama ni vraiment liggéey na fi liggéey bu rëy boo xam ne bi may dugg si fii ak euh, BRT bi doo xoolee kii bi rek dangay ay euh, kanamu dëkk bi da ngay foog ni fii benn réew nga ne bu dul le Sénégal donc vraiment ah oto yooyu aussi ngeen koy utiliser di dem ay Touba fu nekk tey barki démb moom la ministère des transports yooyu lépp liggéey Macky Sall la ba tey yéen projet bi amul lenn lu mu teg parce que projet waram proposé bi jusqu'à présent demagul assemblée nationale pour wane ñëw mooy waral ma ne cey di daw assemblée nationale ba jàkkaarloog Me El Hadji Diouf à l'assemblée nationale foog naa ne mooy du ma yëgoon teel a dem assemblée nationale d'accord ci Mimi Touré boobu nga wax tey def fukki at ak benn ci régime Macky Sall mu jógee ci Macky Sall ci diiru fukki at ak benn Macky Sall defal ko lu dul jeex loo xamante ni Diomaye du ko defal mu génn di yàq lu mel ni xamee kii di Macky te jamono ju mu bootoo ci ginnaaw Macky jamono ju muy naan moo nekkoon patron Amadou mu doon yàq lu mel ni xamee kii nga xamante ne mooy leaderu Pastef di premier ministre bi ak partem Pastef tey Mimi Touré boobu ñëw ci ñoom est-ce que 2029 mënuñu xaar benn Mimi Touré boo xamante mooy taxawaat ci touche bi di yàq lu mel ni xamee kii di Diomaye ak premier ministre ci beneen parti boo xamante moom lay àndal. la mm-hmm. dafa am ni ñoo xam ni loolu la leen yàlla bindee ñoom noonu nañ mel loolu kenn mënu ko dindi ñom moy vraiment deux mille vingt neuf du Diomaye jeexalee aussi xamnañ ni da fay demaat ci ñi nga xamni ne ñoo war réew mi ëllëg. demaat ni ñoom xamuñ dara xamoon n'a ni sont des incapables pour ce pays vraiment Mimi Touré bobu and ak mom sax vraiment ñun dañ ci parce que Mimi Touré mom mom vraiment porte malheur la donc képp ku andal nga perte d'accord Tay ñi gis ni que dañoo woote jub jubal jubanti ñu ne reddition des comptes def li nga xamante ni maanaam mooy pôle judiciaire financier boo xamante ni dafa am ñoo xamante ni dañuy njort ni que ci gestion Macky Sall am na loo xamante ni jaarul yoon alors que ñi ngi jàkkaarloog ay scandales yoo xamante ni c'est flagrant ki ko wax mooy ñi bokk ci ñoom Cheikh Dieng bokk ci coalition Diomaye président épinglé kii nga xamante ni mooy le ministre Cheikh Tidiane Dièye dégguñu ko mu yéey yàbbi ci lii di Azer AE Power mu bu Sénégal ak bu Espagne ñi accusé leen li nga xamante ni moo jëm ci scandale Cheikh Dieng ñu accusé ko lu jëm ci li nga 84 millions benn auto ñu dal di koy dakh ci postam Ali Fall di directeur de chez ñu dal di koy dakh ñu dal di évacuer fofu aussi mais amaguñu ci confirmation que benn marché gré à gré lañ ko bëggoon signaloo mu bañ. motax ñu remplacer ko jël ki nga xamanteni manam maanaam ñalé na fi ndongom Keita la bi nga xamanteni domam bi di fadilu Keita nek directeur u caisse de sécurité de dépôt de consignation mo ci démembrement au CGIS ñu tek ko fa tay ñi ngi la té pap Niang directeur RTS ci juroom benni auto yo xamanteni manam dañ ko def ci touram ñi associé ko li nga xamante ni mooy turam moom mi ngi évoqué donation personnelle bu ñu jox chaîne publique bi tey naka nga mën a expliquer loolu. waaw mais mooy waral kuy woote jub jubal jubanti di épingler ay sàcc yoo xamante ni jàppooguñu leen alors que am na yu bees yoo xamante ni yu ne fàng ñi ngi taxaw te ñooñu kenn laalu leen. waaw xam nga ñooñu dafa am aussi temps sénégalais yoo xam ne dañoo neex a manipuler parce que seen xam-xam bariwul. Hmm dafa am ñoo xam ne aussi dañ leen nangul loolu mooy waral des fois si sama wax dama naan waxuma ak bëy waxuma ak golo yi waxuma ak nag yi waxuma ak fas yi damay wax ak borom xel yi parce que de quoi qu'on puisse dire am na si ñoo xam ni dañuy amoon ci ñoom yaakaar rek di voter pour l'intérêt du Sénégal mais am na ci ñoo xam ni ñooñu ñoom ñoo leen neex lépp loo mënti wax saaga woon seen ndey ak seen bàyyi gis naa si ñoo xam ne dañ ne ñoom nañuy àndal donc loolu damay raakaar pôle judiciaire boobu parce que benn borom xam-xam bu mag doon na wax ne chaque fois état boo gis muy installé ak kiy defi prison ak kiy defi ay tribunaux yu bees tribunaux yooyu doo koy xool ñoom lay àtte ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fa installé mhm. mooy waral Macky Sall moo defoon rapport yi rapport yooyu pourtant waa waa waa ba APR e ñoo ko defoon période yooyu réparé yi tooy tey ñooy répondre ci contrat euh, rapport yooyu. Mhm. donc moy waral épinglé moom it waral Mimi Touré. wa Mimi Touré elle est épinglée. cela veut dire que Mimi Touré. Mhm. fait partie si ñi nga xam dañuy dem répondre. moy waral ñun mënaguñ ci wax parce que y' a un grand juriste un grand avocat bu tudd Paul bi la euh, bi nga xam ne mi ci la grande coalition bi waji ñew bo boo dinañ ko annoncer la semaine prochaine. Mhm. avec la grande sortie de Maître et la Diouf. donc na foog naa ñooñu aussi dinañ jël sen responsabilité parce que yag a dem euh, cour pénal international mhm. et la Diouf yag na fa défendre yag na défendre cour CDA euh, de la justice de la CDAO mhm. même du entamer des procédures au niveau du Sénégal si ça ne passe pas on nañ entamer des procédures au niveau de la CDAO ou de la cour cour pénale internationale donc dans ce cas loolu ñoo ñi ci waxtaan ci ay procédure yu bari yoo xam ni am na ñu bari ñoo xam ne ñi ngi taxaw ay opposants di wax comment faire ak aussi ay yeneen plainte yoo xam ne gis naa buggaan di dugal mais am na yeneen d'autres plaintes yoo xam ne dañuy xaar parce que du dee ñoom dañoo am seeni instruction di ko joxe aussi dinañ xam ne ndax ñun ci Sénégal lañ bokk pour saisir le procureur de la République wala les procureurs généraux pour xool wala dans les organes yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkal cour yi ak euh, ceytu xaalis bi def fa ay plante pour xool ndax dina aboutir doo aboutir nag ñu soog a xool à l'extérieur ak def yeneen campagne yoo xam ne dinañ ko lancer pour l'intérêt di Sénégal